أيس مني الله عند جوالي إبليس إذ ناديته بيا ولي أيس مني الله عند جوالي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدر الأسود كدري

yëf yi nag amul ci lenn lu jëm mooy sant coono amuloo sant yàlla ci biir ndax du tax. ren day kaabu xaw a particulier ndax ren benn million rek la ñu wax noonu juróom benn million la borom xool jamono loolu sant yàlla tey gën a damaa waxoon foofu ne ñun eh, ku aj ba noppi yaakaar ci jàng ñaari yëf ñaari jikko yoo xam ne la dala xee eh, kon ci aj gi eh, déggoo ak aj wala boog la nga fa jàng mokkul loolu bu fa jógee. dañ ko bokkaat suñu borom ak kenn. ndax lañ fay santaane. kenn ku benn doomu aadama mënu ko sant borom. dem boo demee ñu ne la summeeku bu solati lu ñuy ñëw. day dem di fori xeer fee di wëri xeer fee di sànni fële di yooyu yooyu kenn mënu ko sant ak moom kon ku fa jógee waram taw. waaye ku fa jógee itam yaakaar naa rëy. dañ la war a sol da nga fay jànkoonteel daf koo mën a doon boo ñëwee da nga gis koo xam ne mi ngi ay milliards la doo ko xam ne ki nga xam ne dañ koy dimbali mu door a dund ci bis bi ñëpp ñu bokk ñu ñuy dundi loolu ku fa jógee itam euh, ñaari yooyu ku fexe ba jot danga mën a rafet ndox jullit bu demee bu am na taw yi wëlbatiku euh, rëy sori ko ñu ngi itam commencé naa fi ñu jàngal nañ ko fa waaw di sant yàlla bu baax tey rafet jox itam ci ne bokk na ci ak yi nga xam ne dara ñu ko nangu ndax itam ba demee itam lu ñu ko war rek def nañ ko fa te bañ ko fay def dañ ko war def rek ngir jëm yàlla kese bëgguñ ci dara adduna lii sax bu ñëwee fekk fi ñii ñu taxaw wala moo fekk ñoo xam ne dañuy wàcc rek ku nekk ñu soxla def loolu di sant yàlla bu baax tey ñaan képp ku fa demee te bëgg faa dem yàlla na fa yàlla ku fa demoon te na fa yàlla la nga xam ne jëlee nañ ko ci lii itam ñoo ngi ñaan suñu borom lu koy noonu ko fayal te bu ñu koy fay nga njëkk a gëm ne yoon sa sa man suñu borom ko nara mujj sëñ bi taxaw ñu yàgg lool te ànd ak wér. ñaanal sama sëñ bu baax mu yàgg te ànd ak wér ñaanal yëpp ak ñëpp ñi xam ne ñoo noonu àndal aj mm-hmm. yàlla nañ fi yàgg lool te wér. ndax dimbali nañ ñu jàppale nañ ñu bañ def ko ni mu ware ndax ñun xamuñu mënuñu mm-hmm. waaye tette nañu yiir nañu dimbali nañu ci wàllu jigéen ak ak doyee dem ak ak mata dem mm-hmm. ñu jàppale ñu ci yooyu yëpp bañ def ko ni ñu ko war a defee ak ni ñu ko bëgg ndax béréb beekat ak tëddaay bee ñu fa tëddal ku ko xalaat rek hmm. yaakaar naa boo del siwaatee fii hmm. dina am lu def ndax tëdd nañ fa tëddaay boobu kenn xàmmewu fa kenn ak benn kenn xàmmewu fa lenn ak lenn kon nag ku fa jóge bu dindiwu dara ci yow mm. dolliwu dara ci yow mm. yow moom jërëtu sax ngay nekk ci man ci sama gis-gisu bopp man mm. man de xaw ma keneen waaye man de jàngate naa ci loo xam ne li ma weesu maa ngi koy réccu ñaan naa ko ca Kaaba ga waaye li ma jëm ci kanam maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne li ma lay yéene yàlla yàlla naa ko bokk yow mbaa ma jiitu ëf ak ku man di doon ci doomu aadama yi lu ma la yéene rek yal naa ko bokk yow mbaama ji muy mbokk mu di jàmbur muy dëkkandoo maa ngi balu ak ñëpp di jéggal ñëpp na ma ñëpp baal ak ak ma tàggat doomu aadama fii sax wóor ma fee taxaw di wax bu sëñ bi waxee wala sant nañ leen baax alhamdulilah suñu xol sedd na bu jërëjëf di Alaaji Mbacke waxoon rek imam doy na doy na sëkk dama ko ci suñu tur ñun ñëpp dama suñu Fallou Mbacké ab lakalam bi suñu ginnaaw ak mboolem mbokk ñu àndaloon kàddu yu niw yi may sànn rek day jëm ci yi muy lay bi xam ne soxna la ñëm suñu kàddu xam la ne wax dëgg yàlla liñ digaale woon ak ñoom de ñoom mat nañ seen wàll taxaw na taxawaay yoo xam ne ah, bàyyi buñ dara ca dëkkuwaay yaag ca ca encadrement bi ci lépp ndax kenn ku ci gën a jege Kaaba gi amul ci dalu dal yi si ñi jóge Sénégal ñun a a def ko def a si woon nañu loolu lépp seen taxawaay la te noonu la demee woon Makka noonu la fa demee fi ñu utal barab yu baax la yoo xam ne jege na barab yi taxaw a jug ba yàlla dogal tam nañ ko bëgg woon ñu suñu waar ñu tam ci lañ man lépp ah kon nag ñoo ngi sant sëñ Moulay sant ñu yorul liggéeyam ñëpp ñaan suñu borom mu barke barke liggéey bi te jëmee ko kanam ak booleem nag ñu ngi ko seqal ndax sëñ Moulay ñu ngi seqal ñu yaatu lañ xam nga na ñi xam ne baax ni buñ ko la bare ak ñoom waaye yeneen bokk yu bari yoo xam ne ñu ñaanal ci loxoom ak ñoo xam ci dëkk bi lañ nekk ñu wax ca ca ca dëkk bi ñor leen ñoom ñëpp lay constaté ñëpp lay waxal ngir bëgg lii doon loo xam ne waa dëkk bi lay doon làmbatu bi rek xaadimu rasul voyage loolu day loo xam ne jàpp naa ne gis-gisu murid yëpp la kon loolu yi am suñu am nga xam ne moo ñu ko tuddee yaa nañ teg loxoom mu gën a yaatu gën a jëm kanam ba wàll kii nga xam ne mooy mooy juróomi farata yi nga xam ne kenn ku ne yaa ngi ñaan suñu borom may nag mottali ko ci islam kër gi suñu borom may ko jëm bu taxaw ci taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu bu kawee lool lépp ñu ko ñu bokk moom bor ñu nangul ak bi sallallahu alayhi wa sallam ak xadim Mustafa alaykum salaam asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di siyaare bu baax ni yéen ñëpp sëñ Balaye xam naa ko. déglu leen waay day aw ci rajo bi. ndax bàyyam doon na ma jàngal alxuraan 1961. da tax na lii bu ko defee wàcc na ndax bàyyam nit ku gën fële lañ koy war a xamee. waaw nit ku la jàngalee alxuraan ak na kon li mbokk yi wax rek doy na sëkk ñu ngi lay ñaanal ful ko ah, te barkeel ci barke Seydou jërëjëf jërëjëf ah, ñu ngi leen di nuyu di ziar jaaj di ñaan seen seen aj yàlla def ko ci aj yi gën a nungu ci aj yi ajul mabruur waaw di leen euh, santal ci seen ci seen turu jaaj may sant sëñ Mbaye Seck di sant ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ndax kat wala fi dañ ne septième liir bu neexee mbagg day jaay jàpp ca kon dafa mel ne moom initiative bi am na ko waaye ñi ànd ak moom staff bi jàpp di ko jàppale. jàmbaar lañu lool ñu bàyyi bàyyi xel lañu. waaw di ñaanal jaaj yi ñu góor yeeg jigéen ñëpp yàlla mu seen aj ndax te ñi nga ñëpp yàlla na yàlla def ñoom ñu mën a wuy ji. barke Serigne Touba. mu laay nag moom fii mu ne. na ma yàlla déggal ci waxin wi. bu fi mu neex. ndax ba muy tàmbali lii. bi naan la di xadim ilal maxmum la waxal at moom ko jëkk def rek na ma yàlla jegal ci waxen bu fa yemoon mu neex te incha allah du fa yem dina sori lool lool ba jéggi dayo barke Serigne Touba ndax sëñ Saliou ñaan na ko sëñ Sidi Mokhtar ñaan na ko ba ci sëñ Mourou sëñ Mountakha mu bi kon am nañ ci yaakaar bu baax a baax jërë ngeen jëf ñu ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf yàlla na yàlla def aj mu bokk ci yi gën a nangu jaay Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa ndax jóge fi Sëriñ Touba dem na yonent bi sa xarit ba nuyu na la lu ko lu ko gën a rëy man gisu ko man de ba moo ko defee dem fa barabu yonent ba loolu laa ko jëkk a wax daal di génn mu xadd na matul am laa jàng ko fa ba mu jeex bi ma dellu see fii itam na seriñ Touba sa xarit ko nuyu na la loolu dara gënu koo rey waaw dara gënu koo rey kon mu mel ne mu laay li mu li nga xam ne moom la nisëran muy muy muy eh, ilal eh, minal xadim ilal maqdum moom tabarkàlla yàlla sottal na ko yàlla na ko suuxat nag suuxat ko ba mu ba mu bokk ca garab yi gën a kawe rek barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant nañ baax jërë mun ñoo wax nag ci ay mbiram mm-hmm. ndax yàgg bu nu yàgg ak xam gu nu xam yéeneem ak ak njàmbaarteef waaw looloo tax wax ci moom dañuy jafe lool lool lool waaye sant nañu bu baax sant nañu bu baax jërë ngeen jëf kon xam naa day ñëw ci sëriñ Abi bu mi nga xam ne keroog euh, sëriñ Modou Xabane ak sëriñ Abi ñoom ñi la jabaloon ñu ñaan dem ci xanaa di sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin ndokkeel bataay yi nga xam ne dem nañ si àll ba ñëw te bàyyi ko fi si xarit di wax ne leen jaajëf ci xanaa yàlla na leen jig. di ndokkee seen moolaay bu baax nag ndax euh, bëgg-bëggam nii la ko bëggee woon. moo tax mu tàmmoo mu tàmmoo ñu ngi fi ngir mën a fi dellusiwaat nañ fi mu leen jëlee woon kon alhamdulilah loolu nekk ñu ngi sant la yàlla suñu fi mu laay bu baax. ñaan muy ak yokkoom nag suñu doom yokk ba. ba ba yu bëree bare bëri di fi déparé. ñu ngi am ñu dafa ne bu baax ku déparé fii son xarit. dem saa juyante bi dañuy yàq dafa njort lool ci ne asaka àjjana nan ndax suñu fa la waxoon ba mu déparé fii àgg Madina. dafay waa bi tey a na. ñu ngi bàyyi ko Tuubaa wàcc fii ci Madina loolu dal na xel loolu wax dëgg yàlla. mais ni ko suñu waxee la xarit yi dañu wax yi. dal na xel loolu kon ñu ngi ndokkal ñëpp. ñaan ñëpp seen kaala gi ràpp ci seen bopp ku ci bëgg a dellu suñu borom yóbbu nga dem ay yoon man nag ñaanal man ma nekk Seexul Xadim rek gannaaw dem naa sama fa xadim waaw waaw ba ñëw ñëw mo ke ñaanal ma dellu <laughs> na ma ñaanal mu bak yàlla na wér nañ bëgg dellu ñëpp nañ dellu ay yoon yoon amiin bu baax ñu ngi ndokkeel bu baax suñu waay ñaan mu yokk bu baax bu déwénee ay kaari kaari kaar amiin am murid kat dem màkk defe ci mooy lii moom moo moo tax départ fii fii ci penc Touba di sorti mooy yàlla noppal na foofu dafa noppal gi mu noppal si ñi nga xam ñoo leen bokk yi leen doon gunge hmm. ak ñi leen di gàttal moom loolu rek suñu dafa dafa dafa kon nag alhamdulilah lii nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla bu baax may ñu gunge leen woon hmm. ñu fekkat man a jërëjëf xanaa di wax rek ne sëñ Modou Xabane mi nga xam ne moo àndoon ak sëriñ Afay ñëw teeru leen amoon na yéene ñëw gunge dafa jàmp ci dafa jàmp ba waxtu bi ñu koy yëg booba ngir na ja xaw naa jafe tuuti waaye xolam mi ngi ci sëriñ Afay itam teewalaale na ko kaddu yi ñu wax itam ci ñoo ko bokk rek euh, kon nag nga xam ne moo àndoon ak ñoom soxna euh, dem ngeen ci jàmm ba si ci naka la yoon wi dem auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di santaat suñu borom yàlla bu baax ci may bu ñu kàttanal dem ci jàmm del si waat ci jàmm jóge ci suñu sang bu tedd bi jëm ci sangam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam si waat fi kat ci jàmm di ñaan suñu borom nangul ñu lépp lu ko jaam barke Cheikhul Khadim di santaat bu baax itamit Serigne Moulay Seck pas-pas bii mu am ak xalaat bu rafet bii mu am di ñaanal tamit suñu borom di ñaan suñu borom yàlla yàlla bu mu doon suñu mujjeel bi yoon yàlla bu mu doon mujjeelu yoon jullit yi demoon ak képp ku am jën yi demee tey yàlla ko suñu borom jàppandal barke Cheikhul Khadim ñun daal ñëpp sant nañu waaye ñun ñuy bàyyi ko ci suñu sang bu tedd bi Cheikhul Khadim dem te sangam bu tedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a sant ñëpp bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah Seydina Muhammad wa ala ñu ngi sant yàlla di ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci di eh, nuyu di ziar kilifa gu tedd gi di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan borom bi tabaraka wa taala gën koo yàggal gën koo dëgëral àggale ay naaram ci sagoom di am mbégte bu rëy ak cant ci a eh, commencé woon ci bismillahi rahmani rahim lañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant ujaaj yëpp ñi nga xam ne ñoo àndoon ak eh, essence Xaadim Rasul voyage ci aju ren bi ak 2022 ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu nangul leen seen i aj di leen masawu te xam ne di wax rek ne niñ leen ko yàgg a waxee liggéeyu lislaam liggéey la boo xam ne fay ga moo rëy ba tax na coono yi mënut a ñàkk di leen masawu bu baax eh, ci turu eh, alaaji Mulaay mi nga xam ne moo jiite Xaadim Rasul cant gi nag moom xam nañ fu mu tàmbalee waaye xamuñ ko waaw waaye dañuy gàttal rek di sant ci waa daayira Muqaddamatul Xidma ñu leen di sant bu baax ci taxawaay yi ndax gunge nañ ko jaaj yi dalal nañ leen tamit yoo leen gunge woon ba ñuy dem ñu dem ci jàmm ñoo ci jàmm ñu ñu dalal leen ñuy sant bu baax fa tabaarakallah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu